Omar Sow conseil spécial du président de la République Tay damay ñëwaat ci ci gravité euh, des choses moy tay lan lu xew tay moy la personne de Guy Marius Sagna ak ñu mu andal. je pense que tay sen activisme bi jéggi dayo parce que tay lu toll ni palais lu toll ni euh, la république lu toll ni lu melni tay le président de la république qui est symbole ku institution tay ñom ñu def marche dem ba dem ba téye giri palais bi je pense que tey loolu jéggi na maanaam te lancer un appel aux autorités tey le procureur de la république ak tey toutes les autorités compétentes tey ni jël leen ñoom ñoom dëgg leen ci kaso bi parce que tey c'est très grave parce que tey adduna bi toll na jamono joo xamante ne tey gis nañ terrorisme lu mel gis nañu lépp lu mel parce que tamit dañu wax ne ba dëgg nit mun nga mun nga kaas nit mun nga dox say droit mais nit tamit boo nee yow nitu dëgg nga te un activiste droit ngay dox dëgg ngay dox je pense que tey war nga wane le bon exemple le bon exemple mu ngi mu ngi nekk ci lan keroog ñoom marché nañu ñi ni leen ñi marché mais amul ben nit amul buzz donc tay pour ñom ñi am buzz il fallait que tay ñi def lu ñu def moy ñew tay ci ci ci le ci palais de la république jàpp jafandu ba ci gri bi te aussi di profiter occasion di remercier tay nos forces de l'ordre parce que ils ont montré tay que né police bu compétent la ñu am gendarmerie bu compétent la ñu am parce que bu doon yenen dëkk la wala tey bu nekkul woon ñoom seen compétent je pense que tay bakkan dina frotte parce que sécurité président de la république sécurité ken kenn waru koo caaxaanee kenn waru parce que gribe Marius Sagna tey ak ñum andal dañu def lo xam tey rëy na te histoire politique du Sénégal tey kenn musu koo def te kenn amul fi def ko euh, te kenn ñemewu koo def Sénégal nag dafa di nekk dëkk boo xam ne dëkk dialogue la dëkk diine la te dëkk boo xam ne tey tamit euh, dañ euh, dëkk boo xam ne exemple la tey ci ci biir àdduna bi ñoom nag buñ ñu ko jéem a yàkkal te hausse courant boobu ñuy wax je pense que directeur Sénélec génn na wax na ci te hausse boobu concerné wul les petits ménages te le communiqué du du DG de la Sénélec leral na mbir ñi te wax na ci lo xamantene lu lu leer la démb déglu nañu le ministre du pétrole chargé des des questions de l'énergie déglu nañ ko déglu nañ ko dem assemblée nationale te je pense que indi na ci ay tontu indi na ci ay leral dëkk nak dëkk dëkk démocratie la dëkk dëkk dëkk dëkk droit la dëkk bi tay exemple bi moy tay comme ni ma ko waxee tey bu ñu ñëwee tey le le 30 euh, mai 2018 amon na ay ndaw yo xamné ndaw yooyu ñom ak président de la République ñoom ñoo nekk ci même camp. te ndaw yooyu dañoo demoon Euh, euh, euh, palais présidence de la république jafandu ci ngir yi ndaw yoy tay dañ leen doon jël leen tëj leen ci kasso bi donc tay ñooñu tay Guy Marius Sagna ak ñooñu bu défé tay lu mel non dañoo wara montrer exemple jël leen tëj leen ci kasso bi té sénégalais yi baña né injustice la parce que tay ndaw yoy ci présidence la ñu téye woon Guy Marius il faut ñu def différent entre présidence de la république ak palais de la république parce que palais moy institution bi présidence moy fonctionner moy luy fonctionner tay mbir mi donc tay Guy Marius dafa def lo xamantene tay dafa jéggi maanaa te lu may lancé alerte mooy nit ñi nañu delluwaat suñu xel xam ne dëkk bi dëkk diine la dëkk bi dëkk respect la dëkk bi dëkk dëkk dëkk dëkk dëkk ay tey ñun ay acteur politique lañ ñoom ay activiste lañ ñun ñëpp ñoo bokk terrain bi bu nekkee reewande wala bu nekkee leneen ku nekk mun na ko bu nekkee jaay doole ku nekk mun na ko mais dañuy xam ne tey dëkk bi dañ koo bokk te ñoom nañu delloo si waat seen xel xam ne am ay jeunes yoo xam ne ñu ngi leen di xam ne tamit ñeneen ñu ngi leen ñëpp ngi leen di suivre ay kilifa diine ñu ngi leen di suivre te nañu delloo waat seen xel xam ne dëkk bi mënuñu koo taal dëkk bi demoon nañ ci élection yàggul président Macky Sall gagné na leen tey Alhamdulillah, rabil alamin avant 2011 Guy Marius Sagna fu mu 2010 2011 fu mu nekkoon marche né courant amul xuy xuy xamet xamet ñu xanaa ñoom nekkuñu ñun ñoo doon marche tey lu doon wax courant amul luñ doon wax courant bi doyul mais Alhamdulillah, rabil alamin tay luñu wax ne courant bi tax ñu yokko té pourtant ay jamono ci ginnaw courant bi wàññeewoon nañ ko mais tay gis nañu ba ci France ba ci yeneen dëkk yi tay gis nañ tay pétrole bi nu mu yokko ak baril baril mondial bi donc je pense que tay tay yokku te courant bi justifié nañ ko tay ça ne concerne pas tay les petits ménages

condamné ko xamné li ni tay sécurité président mo nekkoon en danger té tay république mo moom en danger moy tay songu suñu palais de la république moy tay parce que loolu non ay terroristes mën nañ ci jaar tay indi leneen indi ba tey ci réew mi te boobaa fu ñu koy waxee parce que bu weesoo weesu tey bu nekkee ñoom am nañ yeneen dëkk am nañ yeneen passeport wala am nañ yeneen dëkk ñun amuñ dëkk beneen dëkk ñun dëkk suñu dëkk mooy le Sénégal te Sénégal ñun ñëpp ko bokk te kenn mënu ko xaar ñaar donc di lancer waat un appel la classe politique di lancer waat aussi un appel aux activistes nekk ci internet bi nekk ci mbedd mi di saaga nit ñi di di saaga sa moromu baay di saaga eh, même sëriñ tey xalifa yi sax bu ñu génnee dañ leen di saaga donc je que tey du loolu moo yor réew mi réew nag même Cheikh da koy ne donc je pense que tey nañ delloowaat suñu bopp nañ delloowaat suñu xel combat le Sénégal le Sénégal euh, un meilleur Sénégal te tey président de la république ci programme bu mu la nekk gis nañ 5 3 5 bu mu nekk tay tey le président de la république gis nañ lu mu de tay gis nañ fi tay comme ni ma courant da doon couper goudé 900 heures de coupure tay gis nañ tay ko four courant bi tollu donc nañ nañu wat xel yi lepp mën nañ ko waxtané mais tay lu melni lu melni tay tey bu mu amati té je pense que tay lu may waxal les forces de l'ordre tamit di leen remercier mais nañ jël ñoom ñëpp seen responsabilité et le procureur encore une fois ñu ngi lay wax ni nga def seen liggéey ñu ko wara défé té bu la kenn bu la kenn wax bu benn intérêt parce que l'ini ça doit être puni aux yeux de tout le monde aux yeux du monde entier pour que le Sénégal le justice je suis boo xam ne que je suis dañ la war